bu du doon dund du ma daj lii ay waay ay ay wàllu ma ay waay <laughs> sonn <laughs> jërëjëf mbokk internet yu safoo di seetaan sit bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontaante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ni ngeen koy gisee ba léegi ñu ngi topp ci kaawu ki nga xamante ne ni moo di eh, Coumba Sène gannaaw suñu njëkk ñëw fi nga xamante ne moo di eh, Lac bi ñu fi jógee nag dem nañ seeti ki nga xam ne mooy eh, Tandey Diop waaye bi Tandey Diop waxee ba pare nag daal nañuy ñëwaat fi nga xamante ni moo di ci Coumba ngir xool aussi lan moo bees ci li nga xam ne moo di dossier bi waaye tamit ba mu seetaanee émission Tandey Diop naka la jàngatee ay kàddoom dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare bu ko defee ñu daal di xuus dugg ci waxtaan bi Kumba ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu waa àdduna di nuyu ñëpp waaw di nuyu fi ma jógee passé unité 22 di nuyu samay mbokk di ngeen nuyu yéen di ngeen sant di ngeen di ngeen jaajëfal parce que lii yëpp yéen a waaw. non avancement amusi si avancement amu dafa dara metti dafa dara metti sama côté parce que ay menaces yëpp laay jot ay menaces yëpp laay bu ma tëddee guddi damay euh, am ñi taxaw fi di nit du xam fan fan lañ fan lañ jugee fan parce que ñett bi yooyu ñetti yoon ñu ñëw fi démb sama doom dafa jooy ba kottu ma si ginnaan samay bët ma parce que xam nga bu doon man man na maa fi ne parce que euh, jaaxaw semaine bii passé sama doom mu ne léegi de toogal fii nga jàppale sa yaay quelques jours dimanche bi si topp ñu indi nga waaye xale bi fitam daru nanguwul lekk nanguwul naan affaire bi métti na ma métti si kanamu yàgg bu ma tëddee guddi même fekkoon man de maa fa ne sax mun naa gëmm ma nekkaw waaye kam xale bi ni muy tafoo si man ak ni muy ragaloon nii man dafa daw sama yaram daa dafa daw sama yaram sama àdduna yëpp tukki na waaw kenn tegu ma ko nag ku du tànde Diop ni mu seetaan naa vidéo mën naa ne seetaanu ma yëpp. balaa ngaa ñëw ci Tande Diop nga wax que ne dañ lay taxaw fii yenn saa yi di la menacer menace yi fan la jógee ndax ñi lay menacer mës nga leen a gis wala danga seen rek ñuy nit. waaw dama ngeen seen ne ñuy nit moom tamit doomam bu jigéen ki ñuy wax Yaa Khady moom tamit woo na ma di ma menacer. woo na ma woo na ma di ma menacé di ma wan naa ma lan ma tax dem si internet bi dem di fa kii sa di mënoo ñëw ñu lijjanti ko ma ne ko man du ma ko lijjantee yéen parce que damaa woo sa yaay ñëwut ma woo paa bi ñëwut comme man tamit ñoo ma ñoo ma dugal si fii te man ñoom ban may jënd nag din ma waxoon at din def si ay magam jëmu gisuma ko man am naa droit man miy joxe sama xaalis parce que man bu ma wóoroo tànde job ba jox ko sama xaalis ah lan moo tax li xew suñu kër moom mooy taxaw sama sama moo sama yaay doom bàjjen doomu nijaay ni ma ko waxee woon si vidéo bi rek nit ki bu nga parce que li xew seen kër yow yaay taxaw bu ma wóoroo nit ki ba jox ko xaalisam même buy jënd mënoon na ma jënd parce que maa ngi dégg si biir vidéo mu ne dafa dem si benn toog mu ne fii baaxul yow léegi yow yaa ngi foofu baaxul ñëwaat si biir toog nga jënd fa nit ah foo xam ne kenn new fi ah bu fekkee ni yow da ngay jënd nit dëgg boo jugee pour jàppale nit te yàggata da nga koy jëndal fi am nit man samay tànk baaxul samay loxo baaxul bu fekkoon tey samay tànk baax na sama loxo baax na kon amu amul problème mën naa fee dund waaye instant mënu ma dem mënu ba mu fi génnee ba mu fi duggee ba léegi musuma fee génn cagal moo ma fii ñëw tuxu si fii mat Sadio ñoo ànd ñëw moo doon doñ bagage di ñëw sagat yi mu doon wax sagat boobu damaa yëkkati xaalis fay paa bi paa oto bi 35000 laa bu ma ñëwee sagat bi ñaari voyage xale yu góor yi ma àndal waa koñ bi xale yu góor ma di roñ par benn sagat bi ñaari yoon ma yëkkati 2000 francs jox ko ne ma sa numéro dinaa la veef ndax bi yow ma fi wecce 10 000 laa fi dese mu ne ma waaw après boobu ba léegi gisatuma borom saret bi te numéro bi tamit enregistré mënuma enregistré numéro numéro damaa waaw après émission bi moom borom tool bi moom moo la jaay moom lan la wax lan moo nekk taxawaayam waaw moom sama tante bu ku ñuy waxtaan ko ma jaane ñëw na fi ba mu ñëwee dafa mel ndeysaan jooy sa def na ko dem ba ne ma man du ma ñibbi te gisuma borom ti jaay mu ànd ab sa sama jabar di jaay dem ba foofu moom jël na responsable am pour taxaw pour defaraat kayit yi waaye jarbaatam bi nga xam ne moo war a kayit nee na ñëpp nañ dajawaat parce que am gisuñu moom nee na bu ma gisoon du ma jaay parce que fii jigéen kese mënu fee nekk te wóoru jaan yéen yëpp di fi saay saay yéen lépp waaw parce que bakki démb jabar CFKT bi bu ko déggee moom dina xëy mu mu ndax damaa romb fii ndeysaan jooy sa def na ko mu ne ma soxna fi nga nekk man heure ma fi rombee sa yaram day que fii nii moom du du du kii ko man ma fenn que fii nii samay kayit baaxagul mu ne du ma génn ndax bu ma génn day fekk si ginnaaw si ginnaaw tool bi nee am kayit gis nga wax ne fii mën na fii am kayit mënoo parce que am lotissement parce que fii tar bi waa mairie bi arrêté nañ woon ta kii mais kii kayit bu yàgg parce que tar dafee waroon a jaar te ñoom xam na loolu ñoom dañoo profité jaay na xam ne mënu ma fee am kayit moo taxoon si biir oto bi ñu ne ma joxe 3 millions 200 bu ko defee say kayit yëpp si nga ci ndax yow mënoo yéen mënoo wàcc ma ne waa loolu dina ma dina ma dina ma ngi ko dégg si biir vidéo bi mu ne ñëw naa ba si Tande Diop gis na nit buy wax da ngay wax sa digganteeg yàgg ñun ñëpp dinañ dee dina gas wax ba mu xóot ñu duggoo ñu fi te ku si nekk lépp loo jëf at loo wax di nga ko waxaat tegal yomb xiyaam nit waxaat te yaa nga tax man damaa danga ma tooñ tooñ bi yow de sa doom woowati ma di ma menace te man loolu yëpp jëlee naa man xamal lan laa ñaan fi ngeen ma jaay nii sax dafa laa mbedd kër gi dafa laa mbedd dafa laa mbedd si kaw taw dafa laa mbedd parce que boo xoolee tey bu ñu ñëwoon tey bi lotissement fii man sama xaaj kër gi yëpp dañ ko dindi parce que si mbedd mbedd maa ngi nii moo jëm tout droit moo jëm nii waaw léegi nag mënoo dëkkal nit ki fu bon yow ba gis nga dem na ngeen fi mu dëkk gis na ngeen foofu am na ay nit nit booy nit booy dëkkal koo xam ne warut nga dugal ko si biir nit bu ko defee métti tam du feeñ. parce en tant que nit nit nit nit ay garabam waaye jamono bii nit nit ay posetam parce que tey jii mboq jàmm ngi sax laa nga wax di laax dina gën dina dinañ gën mboq parce que du leen mboq yëpp parce que tey jii ñoom taan ko ma jaane ñoom taan ami ñoom ñëpp a ko métti du ba démb démb la ma taan ko ma jaane ma ndax tan day jóob ñëw na wala woo na nga taan ami mooy sama magu yaay waaw mooy sama mag yaay moom chaque jour da ko mi te moom ay tànkam baaxul mënu ñëw tànk ku ma jaay keroog ba mu seetaanee vidéo bi dafa ñëw di jooy ma ne ko bu jooy mu ne ma kumba dénk naa nga yàgg kumba defoo yow san da nga am sa yaay am sa baay kon nag yii nday jóob yaakaar ne mën na toroxa billaahi torox doo sa torox si kaw suuf man maa nàmp jox sa yaay doomam def lay woo di la menacé menace mën a am ngir déggoo am ci ba ba ma woowee dana ma euh, lan moo tax nga dem si net bi dafa mel ni sama yaay moo lekk sa xaalis ma ne ko sa yaay xam na ne lekku sa xaalis lekku xaalis bi waaye fi mu ma jënd nga nii wax moo baaxut bu nga nit wóoroo mu ne ma waa gi xew si kër gi sa sa sama yaay sa yaay mooy taxaw mën ko loolu yëpp weddiwu ma ko waaye tax looloo tax man tam ma am fitu yëkkati tam ba bu dara xewee ba ngaa kenn taxaw moom mooy taxaw kon man bu taxawee ne ma kumba kaay ma utal la foo foo foo nekk te man maa ngi dencoon sama xaas banque banque bi ma ko dencoon bu ma ko bu ma ko dencoon sa moom neexu ko nee na ko bu ko yëgoon du ma ko denc banque ndax banque yi wóoruñu dañuy ñëw sàcc après day yëg ko wàcc dem ma ne ko tànda joo man banque bu ma ko denc sama compte mag laa ko dugal compte numbe laa ko dugal dara du ko laal te dem na dem naa ba si banque bi xam naa bu baax ni nga xam ne banque bi wax nañ ma ko fii amul benn client bu fi am waaw fi ma ko denc moo dëgg dal sama xel ma ne ko man damay jënd kër mu ne ma waa am na fu ma yóbbuwoon foofu baaxul ma ne ko fii baaxul fii jënd da ngay jënd foo xam ne dafa am nit. ba ma wàccee euh, sa lag ba ngeen wàcc ma woon dox ba fii parce que diggante lag ba fii xam na nga soog na yéen léet ngeen di dugg si yoon bi gis nga ñax yi ngeen ciy foofu di aw. yaa ngi dégg mu ne ma waa man taxawa fi ni vidéo wan ma ko fi tax ma joxe sama xaalis joxuñu ma ko yaa ngi dégg man dund naa fi coono boo xam ne tàggatuma sax ay yooyu parce que nit ki boo demee ba sonn yaa ngi dee di nga tal leneen wudu ay déggoo ma fii nga ma wanoon loolu man xamal laa ñaan na ñëw ñu taxaw ñu defal ma samay téen mun na ma man dinaa jaay ma jóge fi parce que fii mënut ma fi nekk man monas rek menace kese laa fi def ay compagnie man comprendre ma daal man man man man man ban ban ban ban ban ban famille laa bokk non demaguma fe parce que ba ma génnee ba ma duggee fii ba léegi mënu maa génn gis nga yoon wi ni mu mel yéen ba ngeen ñëw gis ni mu mel sax parce que fii moom man fii taa boo bëggee dégg dëgg dama fee doge sa yoon bi lu mu metti metti est-ce boo ko defoon farata nga dem mairie ba xam sa papier fan lay féete aussi gënul non mairie ñoom sama papier ñëpp dañ ne ma carrément mairie arrêté nañ ba ñoom si boppam looloo tax man dew ma moom ci ma jaay si boppam nee na ma boo demee kumba mairie zéro lay doon toogal fii bu tàgg bi ñëwee même bu fekkee ne amooy kayit dinañ la fay ma ne ko loolu doyu ma ma am samay kayitu bopp tan ami looga ma ne ma amal sa kayitu bopp moo gën saan mu koy méttidu seen waa ñëpp di ko métti tan ma jaan di ko méttidu ab safaar di ko méttidu famille bi yëpp même ba si ami seen a numbe ñoom ñëpp ñoo ngi koy méttidu man mënu maa jaxase samay mbokk ndax degat degat mu bon bon bon bon degat te kenn mënu kaa raxas sànni ngi mu ñooy bokk tey bopp problème amoon tey ba dee am ñoom ñëpp dinañ taxaw fii waaw kon nag looy def xool suñu borom gis nga boo dee nekkee mag dangay defar maanaam bu fekkee famille tas sax dangay jubóore maanaam ñu nekk benn waaye doo ñëw di tasaare. sa ndeera moom muy wax noonu sa ndeera Moustapha dàq benn jour kër gi ne ko mère coow bi am fii yëpp yaa ko ni génn fii ba man ma métti man ko waroo woon a def loolu même bu bon bon sant tante parce que xew moom mooy taxaw. côté côté boobu dama waxoon Ndeye Diop ko ne. Mhm. ay yenn yi vie privée la ci. waaw waaw moom waaw. xëy na journaliste wala kenn kuy ñëw di. waaw yu mu tudd waaw waaw waaw. xam nga waxoon naa ko ci say biir wax. Mhm. loolu aussi yow dinaa la. man bàyyi naa si xel waaw. d' accord d' accord léegi dañuy wax rek ci li nga xam ne moom moo ñu yëkkati. waaw mbirum euh, li nga xamante ni moo di. terrain waaw ndax mu ngi avancé ak yooyu ndax boobaak léegi. ndax bi mhm. nga defee émission ba tey am na ñenn ñu la woo ngir jàppale la wala ba tey mu ngi euh, dossier bi mu ngi taxaw fu mu taxaw. waaw am na ñu ma woo ñu jàppale ma waaye fii kenn ñëwagut kenn ñëwagut ñëwagut kenn ñëwagut waaw parce fii sori na sori ko wax xam naa yoon bi at xalaat da ngay yoon bee at fii ni mer waaw waaye xëy na dinañ ñëw xëy na ñëw parce que même suñu waa ko ñëpp ñu ma pexe bu ñu si am bu sooba yaaga ñun dina dina ko àdduna ma masawu di ma di ma ma ci waaye di ma jàppale daal maanaam ne ma dinañ si say mbir pour affaire bi mën a ci ndax jigéen ñun ñëpp jigéen nañu juuf ñu si bëri aussi woote woon nañ di laaj sa numéro ndax ñoom tamit réagir nañ wala ba léegi ñoom ci appel rek lañ yem. waaw si appel yem am na ñi nga xam ne ki nekk Touba yónnee na ma ak ki nekk euh, euh, fee nu mu tudd sax euh, Europe yónnee na ma 15 bi waaye loolu rek daa jot a am na ko nañ ko ma woon ne ma gis na orange ma ne man waaye gisuma message waaw bu bu déggee may wax mun na xoolaat mu kiiwam bu baax. Mm-hmm. waaw man dugguma si sax ngir xaalis xam nga lan laa si dugg pour ñu jàppale ma maanaam même bu dee waagum avocat pour ma am sa ma am si biir kër yi ma mën a génn fi ma nekk parce que sama doom bi ma nekk fii fan yi paas démb nekkawut daal démb néew ma ne xapp bët parce que dafa métti tam nga nekk say doom nag sa biir kër amoo fit pour. bul jooy Massa Massa am na lay loo xam ne aussi dafa métti Massa.

ay sama papa du doon dund du ma daj lii ay waay ay ay wàllu ngeen ma ay waay <laughs> soo dund naa <laughs> sax noppi sama papa bu doon dund du ma def nii doom instant yaa ngi jooy bu sa doom ji di jooy xoolal ci sa doom ji ak lu mën a xew nga xool ci moom moom aussi comme li ñuy wax rek que doom nawle la mën ngaa jooy aussi ba jooyloo ko wala nga jooyloo ñeneen am na lu metti loo xamante ne ni yàlla rek moom moo ko mën a teg doomu aadama kon dangay muñ rek yàlla teggil la ko li nga xamante ne ni massa massa man ngay jooy kumba jërëjëf yàlla sunu borom sant naa yàlla gërëm sama ñaari waajur <laughs> woote na woote na ami woote na numbe woote na tan ami woote na tan kumba woote na ñëpp a koy mettre ab sa sonn sonn na si waaye ñoom nee nañ gisuñu dara kam bañ naa ñëw man instant yi yoon kese moo fi sës yoon kese yoon kese moo fi sës léegi man daa ñi nga xam ne ñoo yoos waayum yoon ku si dégg sama vidéo bii na nga jut def te yàlla tax jàppale ma ma samay këyit normal parce que aw ma dara fii laa am samay njaboot tamit amuñu fenn fii laa am ku dem bay jënd kër say njaboot a tax waaye kenn jën ñun jëndut nekk fa yow kese te du kenn ko yaaga xëy na nag tànday Jóob dafa jugoon pour togax ma waaye yaaga du ma seetaan mukk parce que yaaga moo yow mooy yow doomu aadama du nit parce que romb na fii yëpp si taw lag bi noonu wetu ko sefekate foofu mooy fees dell romb na si ginnaaw si te yaay su si te ubbi dëkk gi boo taxawee ne gis ko lan moo tax mu ñëw ba fii nit ki booy def te yaaga taxawa nga jut pour jàppale ni ki du nii koy jàppale parce que dañu ñëw fu kenn dëkkut si biir tool si biir jaan ba ki démb Sadio moo ñëw bayee ma fii yëpp ndax gis nga ba ngeen di ñëw yoon bi meewul woon nii waaw parce que dafa seetaan vidéo bi yaram moom daw kon ñëppoon koy jiyee ñoom Ndeye Ndiaye ñoom Ami Thiam ñoom kan Ndiaye ba ñëppoon ko ñoom juma ñoom ñëppoon koy méttiwul koñ ba ku wax ndeysaan muy xale yi ndeysaan mbuuc mbuucaat yi sax ñooy ñoon ñoon koy netto naqal ku dégg ne kumbal yi meew ko waaw. waaye nag sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax di ñaan yàlla tegi ma natt bii ma daal non jotuma déposé plainte waaye bu soobee yàlla dinaa dem tey laa waxoon laay dinay dem sax far yàlla ngeen ñëw waaye bu subaa bu sooba yàlla dinaa ci war a tey jii sa fekkee ne naaju nii bu ma demee bu fekkee ne plainte yi mun naa mun naa dem ma defi plainte waaw. di ñaan yàgg nañ ñëpp ñëpp képp ku nga xam ne yaa ngi dégg sama vidéo sama vidéo bii na ma taxaw nga ni ma. waaw parce que nit amu dara nit loo mënta am te amoo kër amoo dara parce que man mënatuma liggéey waruma aw ma kenn ku ma jàppale sa suma kenn samay doom xarala te tamit bu ma fi nekkee tamit tey jii ma peet sama fii fii laa am kenn du ma fat kenn du ma fat parce que tey jii nit ñi dañuy bëgg sax di nga jàppale ay say mboq waaye samay mboq yi amuñu am moyen boobu waaw ñoom ñëpp nañ ñoon koy métti du ñoom ñëpp ñoon koy métti lu ba si tànn ku ma jaane at waaw ñoom ñaar ñëpp dañoo génn àdduna di ñaan yàlla suuf oyof seen kaw jéggal leen seen bàkkaar xaar leen àjjina at mboolem jurit bu tëdd si biir suuf parce que ñoom ñoo a taxawoon di ma sotti ginnaaw yàlla na ñoom ban gaañoo ba léegi man si laay dund ay jafe-jafe yu métti jot naa fee ay situation yi métti métti boo ne kenn mënu taxaw jàppale ma ba si tànday job moom ni muy wax noon noon noonu yëpp waaw amut parce que nit euh, boo koy jàppale doo toog internet dina benn demee yoonu përi sa nangam te yooyu yëpp moom moo ko indi waaw man samay mag yi aw maan ñoom benn dem aw maan ñoom parce que ñoon may woo ba démb démb ami damaa woo ne ma dama si yoon waaw fii bu pare nee na collecté nee na defuma waañ nee na damaa wax ne man soxluma waañ si oto bi euh, kii laa ko wax euh, magasin euh, waañ douze publique bu si amul garaawu parce que tam ñaari néeg ji am na salle garaawul mu ma déedéet ci euh, euh, douce ma ne ko déedéet tam ñaari néegi bu amee man noonu ma correcté jënd ma buntu yi baax palanteer ba si biir oto bi vie moo ngi koy wax ne ko jënd buntu yi baax ak palanteer yi baax parce que jigéen nga tërët tiga tërët ba paa bi ne bu sooba yaa naa ko def man kumba mu ah, ko def te yaaga tax fayeeku ma nga ñaari dërëm gisuma ko gisuma tànday Jóob ku ma si woo du ñëw moo ma paree nii dinaa nga teg euh, audio yi nga xam ne enregistré naa leen ñoom ñaa ñëpp ma maçon bi at paa bi at tànday pour di ngeen woo di ut wallu waaye ñëwuñu ba tey mm-hmm. ba tey ji amul kenn ku ma fekk ndeysaan maa ngi sant nag waa passé bu baax di sant jaaga mi nga xam ne moom ginnaaw yaaga moom la di sant Sadio di sant seen waa kër ñoom xujja ndeysaan sama yaay ju baax jool si tër yi di sant ñëpp képp ku koy métti du dekk ak di di ma bokkat man ñi may woo ñëpp maan ngi leen di sant di ngeen di ñaan yaag yaan na ngeen yaaga fay aw ma seen fay waaye yaan na ngeen yaaga mi nga xam ne moo am fay yaan na ngeen yaaga fay di ngeen fay yaaga tamit fay yéen yéen ñi nga xam ne tamit yéen yéen a ñëw fii bokkat man métti beet ak beet yëpp waaw di ngeen sant di ngeen gërëm non kayit bi moom jàpp ma si dara attité bant bi ma jox sa du original ndekete photocopie bi ngeen ma jox waaw photocopie ngeen ma jox parce que bay tabaxa nit sax même bu fekkee day ko def te yaaga tax nga ne damaa laaj cinquante mille pour ma clôturer ko fii lan mo fi cinquante mi dafa mën a clôturer fii ah xaalis bi jeexul woon ñoom xaalis bi ma ngeen jox mënuñoo jeex parce que ñaari néeg yi ñu fi tabax mënu jeex ak xaalis bi adduwaas yi baaxul buy taw yëpp ay te ma ngeen dem dinaa leen vidéo bi keroog ba muy taw ni ma ni ma dundee si biir ba ngeen ko mënee génne sax ba tey ngeen ko waaw dinaa woon vidéo at engagement bi nga xam ne pa bi ma euh, tabaxal di ko ñaan parce que ba ma jotee vie mi pour di ko ñaan wàllu pour ñu ñëw ñu waxal moom parce que bay bi muy bay fi yëpp mënu ma ko te jigéen laa te samay tànk baaxul waaw nan ma jàppagat daa ñu ñëw taxawuma dafa samay kayit mun na maa jàmm mun a am man laajatuma fi ma vidéo wan ma ko laajatuma foo xamante jumba tan na leneen wudu tabiteen ndax coono bi ma dund fii yaakaar naa tan naa leneen wudu ay naan ay fin ma joxoon nan ma déggoo foofu laajuma la lan lan laa laaj nan ma ñëw defal sama papier ma mën a jaay mën a génn fii waaw waaw juboo mun na am parce que man euh, instant bi soxla ma euh, li may wax rek kam nee naa la gumba tànn leneen wudu tëbi teen parce que coono yi ma fi dund ak ñàkk a lekk bu ma fi ñàkk a euh, lekk ak métti yi ma fiy dund ak menaces yi ma fiy daj rek tax na man fi mu ne nii laajatuma dara man nan ma ñëw jàppale ngir yàgg ñu defal ma sama kayit képp ku nekk si waagum yoon képp ku nga xam ne nekk na si waagu justice tribunal képp ku dégg sama wax ji na nga taxaw nga jàppale ma tey yàgg tax ba si mairie bi buñ ma déggee nan ma taxaw ñu jàppale ma ñu jox ma samay kayit mu leer waaw loolu rek daa ñaan waaw caatu bi mujj di mooy di ngeen sant di ngeen jaajëfa di jaajëfa jaaga mi nga xam ne at Sadio ak képp ku may seetaan ak képp ku bokkan man métit bi at waa 22 ñoom day Ndiaye ñoom ma Mama Fatou ñoom Ami Thiam ñoom Tane Dieng bi ñoom ñëpp maa ngi leen ci at ñoom Juma ñoom ñëpp maa ngi leen di fa waa koñ ma ñëpp bàyyiwuma kenn waaw maa ngi leen di sant di ngeen gërëm parce que métti teg naa leen métti too xaw parce ñoom ñëpp instant bi nekk si jàmm ku si tëdd guddi danga may woo. jaaxu ba ba ki démb ba mu dee guddi dafa woo téléphone jaaga ne ma kumba ba tëj na nga sa buntu yi man buntu bi mënul tëju waaye lonk loke naa ko maanaam euh, seen bi moom kese moo koy tëj du buntu bu baax du du du du cadre waaw yéen tamit maa ngi leen di sant waa Wassare maa ngi leen di gërëm di ngeen sant ak képp ki nga xam ne moom a seetaan maa ngi leen di sant di ngeen gërëm waaw jërëjëf jërëjëf mbokk internet yu doon safoo di seetaan site bi di wasaare nii lañ leen ko waxee tey ñu del si waatoon file ci Kumba ñëw daal di koy seet si gannaaw xool ba xam ndax mbirum kër gi mu ngi avancé ndax dem na ci maire yi ndax am na ñenn ñoo xamante ne nii ñu ngi koy jàppale waaye moom si bëgg-bëggam rek comme li mu waxoon la daal di waxaat rek li mu bëgg mooy ñu defal ko papier yu wóor yoo xam ne dafay firndeel kenn rek moom moom moom këram bu ko defee moom bu fekkee day jaay mu jaay bu fekkee aussi day continuer dëkk mu continuer dëkk li avocat yu ko mën a jàppale wala ñenn ñoo xamante ne nii mën nañu ko jàppale ba mu am foo xamante ne nii mën na fa nekkandeegum ndax fii euh, comme li mu wax rek wóorul àll la ñun nga xamante ne nii sax avant ñu fee ñëw xaw nañu euh, daj coono bu méttee métti door a yegg si si kër gi kon képp koo xam ne mën na ci jàpp rek boo ñu woowee dinañ la jox numéro Kumba nga daal di koy woow newuñu kenn nag koo xamante ne nii dañ ñuy woo ngir woo ko ngir ay caaxaan wala ngoo ko ngir leneen mais dañuy wax ngeen koo xam ne Ah, da nga koy woo ngir farata ak ndimbal rek tax laa jóg waaye képp koo xamante ne nii da nga koy woo ngir ay caaxaan wala ay fo wala wax leneen eh, ngir sabilillah bu ko woo waaye sax bu ñu laaj numéro waaye képp ko xam ne jóg nga pour jàppale ko rek boo ñu woowee dinañ la jox numéro Kumba nga daal di koy jàppale bu jaree déplacement dinañ la wax fan la dëkk bu ko defee aussi nga déplacé wu ñëw ba fi mu dëkk daal di xool situation bi eh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal jaara di jaajëfal xali sama caméraman bi eh, di jaajëfal mbokku internet yu doon safoo di seetaan site bi Wassare di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké bu mag bi jaajëf